Thiam Sène ziar la. waaw delloo ziar ba ji waaw sant nañu ci kaw bu baax. waaw alhamdulilah waaw gis nga de wuyu si ci woote bi de. waaw lu gars yi wax rek ñun ñu ngi ci ginnaaw gars yi parce que xam nga rek comme que suñu grand lañ ñun ñu ngi woo fii lu ñu wax ñu bu wootee foo xale wuyu ko. mu tax ñu teew fii quoi. du may ñu maanaam ñu sport bi mooy suñu sport national comprendre nga laaw rek mooy suñu métier tey lu suñu mag wax rek ñu seen ginnaaw. moom Cheikh Tidiane Nialaam